am na solo lool. yal na yàlla sàmm leen. ci taxul kon ñu ne sëñ Pape. ok. asalaamaaleykum wa rahmatulah. Serigne Mouhamed Ngom gane àdduna le 29 du mois 2005 ci Touba way juróom bu góor tudd Serigne Modou Ngom way jëlee bu jigéen tudd soxna maam Seydiane Ba audu billahi min ashaytani rajim bismillahi rahmani rahim Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa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 وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى صدق الله العظيم soxna Mame Bousso duñ la bàyyeegum dañuy wéy ak yow ci beneen laaya baada audu billahi min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim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 آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس Come on! الى السماء ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي xam naa dañuy continuer liggéey bi ci xale yi nga xam ne ñoo wattu téere yàlla bi mu mel ni commencé woon ko waaye da dañoo xawoon pause xam naa dañ leen euh, ñu ci woo ki nga xam ne mooy Fallou Kassé Serigne kase Kassé fali tafaddal mashkura aywa Serigne Fallou Kassé euh, baad aoudu billahi min ashaytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن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 السبيل وابن السبيل إن كنتم سمعا والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم أقبل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد jërëjëf sëñ Mame Fadal jërëjëf eh, sëñ Baye mi am solo lool jamono ci yoon kon ñu ñu présenté ci autorité yi fi jot a teew ci sëñ eh, eh, délégation fédération nationale ki ci bopp di président Serigne Moustapha Lo ànd ak Serigne Omar ak Serigne Dame Seck ak soxna maam Bassine Mbengue ak mboolem ñu ñu àndal ak Serigne Adama Seck voilà ak Serigne Moustapha Gueye ñu leen nuyu bu baax di leen ziyaara di rafetlu seen teewaay bu baax a baax délégation euh, monsieur le ministre de finance euh, Amadou Ba moom tamit yéen def délégation bu am solo ci njiitul euh, Fallou Thioune ak euh, Abdoulaye Sow ak Seydou Diakh ñoo tamit gis nañ seen teewaay seen bi mi ngi leen di gërëm bu baax a baax euh, ak al oustaz Serigne Mourtala Lo moom tamit di maalim Alxuraan yor daara teew na fi dafa noonu al oustaz Serigne Mourtala Gueye moom tamit teew na fi gis nañ teewaay bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax Serigne Mouhamed Amin Cissé moom tamit teew na fi maktabat al islamiya moom moo jiitu ci baas bi ci suba ba léegi mi ngi fi ànd ak ñun bàyyi liggéeyam ngir daara ji ak alxuraan ak kuréel gi mu seqal seen xaalis ñu ngi jaajëf bu baax a baax di rafetlu sa teewaay ak oustaz alaaji Omar Ñan moom yor daara teew na fi sëriñ Mouhamadou Fadal Mbacke sëriñ Fallou Mbacke moom teew na fi euh, Parcelles Assainies moom teew na fi yor euh, école arabe délégation <coughs> délégation euh, c ñoom tamit teew nañ fi ki ko jiite di Serigne Fallou sekk Serigne Dame Touré ak Serigne Mahmoudan ñan ñoom tamit Serigne Mahmoudan Dieng teew nañ fi ñu ngi rafetlu seen teewaay di leen sant Serigne Mohamed sekk doom ci di doom ci xalifa général bu cere Thiénaba moom tamit teew na fi ñu ngi koy masawu ci coono yi di ko jaajëfal sëñ Daouda Fall tamit teew fi gis nañ teewaayam ñu ngi koy jaajëfal bu baax sëriñ Mouhamadou Amine Baara Gueye moom tamit teew na fi ñu gis nañ teewaayam ñu ngi koy sant di ko jaajëfal sëriñ Moustapha Fati moom tamit teew na fi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax al oustaz Abdoul Ahad Ndaw moom tamit di muallimu Qur'an yor daara indi sat moom tamit teew na fi Serigne Diaw Makodou Ndiaye jóge ba tuubaa moom tamit teew na fi gis nañ teewaayam ñu ngi koy jaajëfal bu baax te di ko masawu ci coono yi Serigne Djili Mbaye di Serigne Daara jóge ba Sangalkam moom tamit teew fi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di rafetlu teewaayam ak Serigne Bassirou Sakho bu Inakoa moom tamit teew na fi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di rafetlu teewaayam gis nañ teewaayam ak Serigne Maodo Sylla bu wax. président bureau panel di demee moom tamit teew na fi sëriñ Cheikh Mbacke Ilimane Parcelles Assainies moom tamit teew na fi gis nañ teewaayam ñu ngi koy baax al imam sëriñ Ibrahima Bousso euh, imam moom tamit teew na fi ñu ngi koy jaajëfal bu baax di ko masawu coono kon mel na ne ñoo ñoo ñoo fi gën a ràññeeku. Euh, xëy na ñu kon dañuy jox euh, président euh, fédération nationale Serigne Mouhamed Moustapha Lo mu am kàddu yu mu fi rotal bu ko programme incha allah kon Serigne alamin wa salamahu ala alhaadi alamin sayidina muhammadin ilmakini wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci weer wu tedd wi nga xam ne ci lañu nekk di chehru ramadan al mubarak di ñaan borom bi tabaraka wa taala fan yiñ ci jota am yàlla na ko yàlla boole nangul li ci des itam mu may ñu ñu àggale kook sunu sago te lépp mu gërëm ko di nuyu nag kilifa yi ñu fi fekk yëpp di ci jiital sangu yu tedd yi nga xam ne ñoom lañu dégg léegi ñu lim seeni tur kenn ku ne ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la ziyaara di la ndokkeel itam ci bis bi di nuyu waa daara ji yëpp di ci jiital al imaam sëriñ xaadim mi nga xam ne moo saytu liggéey bi di ko ndokkeel itam bu baax tey rafetlu taxawaayam ci diine ji waaye di rafetlu taxawaayam itam ci daara ji mu mel ni kàddu gi kàddu sëriñ Moustapha Lo la te sëriñ Moustapha Lo nekk ki nga xam ne jamono bii may wax ak yéen moo jiite kuréel bi ñuy tuddee fédération bi ëmb daaree alquran wala bi ëmb mbootaay yi ëmb daaree alquran yi ci réew mi te yàlla dogal sëriñ xaadim Njaay mii bokk ci ponk yi nga xam ne bu ñuy lim fédération bi tey fu mu àgg gannaaw yàlla moom mii bay na ci waar woo xam ne wu mucc ayib la ndax maa ngi fàttaliku rek jamono biñ koy door a sos di ko taxawal mu metti woon lool yendu nañu këram ba tey am na bi sax maa ngi fàttaliku fanaan nañ fa ci di xalaatal nan lañuy def ba doomi daara yi ñu benn la seen kàddu waaye di ànd di yëkkatandoo di tegandoo yàlla def na ndaje yi njëkk ci daaram lañ ko doon defee kon suñu xaadim ñi ngi lay jaajëfal bu baax di la ñaanal borom bi tabaaraka wa taala yàlla yàgg kàttanal ndax moom day ku ko xam rek ci daara nga ko xam foo ko seen muy dem rek jëmm ji da xam ni kii alxuraan moo ko yónni walla dañ koo yónni ba mu dëpp mu yenu ndabal yiw jëm ak moom foo xam ne ñëpp ko war a jariñoo kon loolu yàlla na ko yàlla yàggal di nuyu nag bu baax a baax ki nga xam ne wax nañu ne ren jii moom la ñu dara jaale bis bi di sëriñ Mouhamadou Guèye di ko ñaanal yàlla yokk ko wér te guddal aw fanam ndax sëriñ Modou Gueye dey yaakaar naa ne fii ci parcelle xaw ma fan de waaye fii ci parcelle moom defe naa ne alquran tolloon na fi jamono yoo xam ne bëtam xonqoon na fi lool waaye gannaaw yàlla sëriñ Modou moo moo ci liggéey liggéey bu rëy ànd kook nag sëriñ daara yi nga xam ne ñu ci bari séen naa leen ci tànt bi ñuy ànd ak moom di yëkkateendoo du tegandoo ba tey jii fu alquran ak gannaaw yàlla fii ci ndakaaru bay boo ñu wax ne gàcce ngalaama sëriñ Modou Gueye kon yàlla na yàlla fayal ñu ko di ndokkeel itam di sem di septième promotion bi nga xam ne mooy dottu tànk yi doon jàng alquran ji di leen ñaanal yàlla barke bi alquran yàlla na ko yàlla wàcce ci seen dënn te ñu màggaale ko te muurloo ko ñoog seeni wéyjur di wax rekk kàddu yu gàtt ni Serigne Moustapha Lo dey mu ngi joxe ab yóbbante ci képp ku fi teew di wax ni nañu bàyyi xel bu baax a baax daare jii ndax kat yëg ngeen ni moom la yàlla nattoo tey jii mu jaboote njabootuk alxuraan ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi mu di leen bàyyi xel di leen nemmiku di seet lan mooy seeni jafe-jafe muy jéem a xool yan solution lañ cay jéem a wut loolu tax na ba responsabilité boobu ko yàlla yan mu bëgg cee jaar nag bàyyi loo leen xel yéen wayjur yi gannaaw ba ñu leen jaajëfalee sëriñ Mouhamadou Sylla sa kàddu dégg nañ ko bu baax bi nga xam ne moom la sëriñ ma ko de jot jotali léegi di ko rafetlu itam di leen jaajëfal ci seen taxawaay ndax xam nañu ne ñu mel ni yéen bu ñu leen amul woon kon daara ji dana demee neneen xam nañ seen taxawaay xam nañ seen yéene xam nañ seen pas-pas kon ñu ngi leen di ñaanal suñu borom yàggale na kàttanal kattanal te baril seen i kem ba li ngeen yéene ci daara ji ak daara yi nga xam ne xam nañu bu baax ne yéen a ngi cay tàbbal seenu ñaq lépp lu ngeen cay yéene yàlla mën leen may kàttan gu ngeen ko mën a eggalee waaye du tee nag ñu bàyyi loo leen xel. ni daara ji day ak nu mu mën a toll ak fu mën a àgg du jóg ci di aajoo ku ko jàppale ndax daara moom li fii sampul kër goo xam ne dañ ni kër gi alquran ko moom ñu teg ko ci loxol sëriñ xaadim Njaay ne ko lii de jox nañ ko alquran ngir yàlla ak sa jëmm jàppaleen ne kon liggéey bi des na te xam nañu ne incha allahu loolu mi ngi ci xel ñu bari waaye mi ngi ci xolu ñu bari itam di leen ñaanal yàlla yàlla kattanal leen ba foofu ngeen bëgg àgg ngeen àgg fa ndax kat liggéey bii nga xam ne tey jii sëriñ daara yii ma gis ñu ronu ta euh, baas bi ñi ngi koy taxawee ci gox yu fasantikoo na ngeen xam ne dañ cee wuutu mag ñi nga xam ne ñoom lañu doon te seen bu liggéey suñu borom gërëm ko ngërëm loo xam ne ñun ñëpp mën nañoo wax ne seen barke ci lañ tàbbi ba di ko dund tey jii loola nag dama wax ni. kenn ku mu mën a doon war ngaa yëg ni war ngaa feddali sa laxasaay waaye war ngaa gën a dolli sa njàmbaar te gën a góorlu ba sas woowu nga xam ne yàlla wàcce na ko ci saw nga fexe ba tool boobu ñu la dénk nga bay ko bayin wu rafet mu bañ a booy loolu de moom la ñu sëriñ Moustapha wax ni nañ ko jottali ñëpp ñu bàyyi ko xel te xam ne kenn ku ci nekk loo ci def lu ne sunu borom ngay liggéeyal alxuraan téeréem bu nga moom ngay liggéeyal waaye yëgal ne sax njaboot ngay liggéeyal ndax kat sëriñ daara yi ngeen gis day seeni wayjur dañoo sonn ci ñoom ba yàlla dimbali leen lii ñu am tey jii mu tàbb ci seen dënn ñu fas ko yéene rafaatale seenu njaboot loolu tamit muy sas woo xam ne kenn ku ci nekk mu ngi koy bàyyi xel tax ba moom itam lu mu làbbali rek xeeb lépp lu mu jëf itam ci biir toolu alxuraan bi da koy xeeb kon mu ngi ñaax ñëpp ñu gën a góorlu gën a soññuwaat te takkuwaat mi may dee léegi rek di ma fàttali kàddu goo xam ne yéen a ngi fàttaliku ci ginnaaw président France bi mu fi ñëwee te coow li bari woon ci lool waaye am na ca mbind yi nga xam ne teewlu nañ ko ca yam waxoon ne moo ko taxoon a jóg bu ay pexeem jiboon tey ji yaakaar na ne daara yi ngeen gis tey jii tout tànk yi ngeen gis ñoom ñëpp ay ABC la ñuy gën a mën ci bisi loolu nag ku ne xam na li la tax antuwut mooy sëriñ daara yi ngeen gis ñu futti ku laxasaayu rek fexe ba ndonal mag ñi moom incha allahu taala dara du ko yàq kon yàlla na leen yàlla gën a taxawu ba tax na kon wax ji daal mu gudd mu gàtt kàddu sant la ak ngërëm waaye ak ñaan di ñaanal mboolem sëriñ daara fu mu nekk tey bay tey bay ci toolu alquran di liggéey liggéey bu mel ni sëriñ bii sëriñ xaarim taxawee yàlla yàlla fekk leen fa ak ndimbalam kattanal leen ba li ngeen mébét ngeen mën koo àggale ak seen sago te bañ na gàllankoor bañ cee am yal na leen ko yàlla defal di ñaanal ñëpp euh, yàlla nangul suñuy koor nangul suñuy naafi la déwén koorub déwén yàlla nañu ko yàlla fekkaloo te kenn bañ a manqué ñu ngi ndokkeel bu baax a baax suñu suñu jëwriñ suñu xaadim ci barki démb taxawaay bu am solo bi nga xam ne ñëpp teewee nañ ko sa si ses di ñaanal alaaji sëriñ Seck yàlla na ko yàlla guddal fanam moom itamit te dolli ko wér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 إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتبه وادعه إلى صراط مستقيم وآتيناه وإنه في العاقبة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك ثم أوحينا إليك أن اتبع أن اتبع اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبط على الذين طلبوا فيه وإن رب ربك ليحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون حسبك صدق الله العظيم ما شاء الله محمد مؤمن في إنجاز ما أرسل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 وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة صدق الله العظيم ñu ngi jaajëfal bu baax di leen ñaanal suñu borom defal ngeen mag te magum lislaam yàlla barkeel sa alxuraan te mooy leen am xam-xam te ñu jëriñu lislaam yëpp xam naa sëñ Mouhamadou Mouroum ak sëñ Moustapha Ndiaye ak équipe am xam naa fi ñu nekk rek ñu mën a waaj ma dugal si Pape Kane am na ay. yenn yu doon kii bu bu noppee rek incha allah Moustapha Kane mën a Moustapha Ndiaye mën a ak mboolem équipe bi ñu àndal bu noppee ci loolu daal di jox xale bi nga xam bu paree ñu daal jox xale mu ñaan ñu daal di mën a mottali incha

waaw waaw kon nag moom li ñuy ñaan rek yàlla sàmm leen te dimbali ñi ciy sonn yi yàlla gën nañ cee may ndam ay effort yu métti métti la ñuy def ndax ba ne moom def ci moom dara moom jafe na lool daanaka ñoo gën a métti sax ci mag ñi kon lii ñu fi wane nii dina wér lu leer nañ ñi là là mi la ai dư cô a ha được a ha được là là gì تكبير قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلى عليهم إذا يطلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صدق الله العظيم عبارات الشكر تخجل منك لأنك أكبر منها فأنت لك الفضل في تحويل الفشل إلى نجاح ورفع العظيمة والمعنوية لدي فأنت أهل التميز والتقدم إليك يا من بذلت ولم تنتظر العطاء إليك أهدي عبارات الشكر والتقدير أستاذنا ومديرنا الفاضل سرين قادم جاي لك منا كل الثناء والتقدير بعدد قطرات المطر وألوان الزهر وشذ العطر على جهودك السمينة والخيمة من أجل الرقي بمسيرة المدرستنا القالية وهنا نقول لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القائلة سخنة كنياي من قريج مؤسسة دار تنزيل sadaqallahul azim ci biir discours bi mi ngi naan ñu ngi lay sant gépp sant sant goo xam ni même buñ doon même buñ doon copp sant googu noonu maanaam di ko natt ci pepp pepp ndox yi nga xamante si ne tey mooy wadd jóge ci kaw asamaan sant googu noonu mun te jeex su fekkoon te ni dañuy xool couleur fleur yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di la ko sant sant googu mënul jeex su fekkoon te ni lépp am ñu ngi koy def lépp dina ko sant kon seen sant googu foor na wax dëgg yàlla it dañ ko sant googu ñoom dañ koo def waaye defal ko ñëpp muy ñëpp ñoo xamante ne nii muy personnel muy ñëpp ñoo xam ni ci daara ji lañ nekk fi la ñuy yëngu fi lañ jóge euh, xale jigéen yi nag ñoom ñoo doon jàllale googu kàddu di ko sant di it bëgg koo teral ci benn teral gi nag munta weesu lu dul wax ko ay kàddu ndax seet nañ ba sonn luñ ko mën a jox amuñu dem nañ fu ne ci sama kanam ñu sàkku ñu bindu discours wax liñ koy wax kon suñ bi ci kanamu waa daara ji yëpp ci kanamu xale yu jigéen yeeg ci kanamu ñëpp ñëpp ñu ngi lay sant sant goo xam ne ndax lépp luñ mën a def ñun lu dul jug jàppale la jug bokk ak yow lépp defuñu leneen li nga def yëpp gis nañ ko lépp loo ma a def lépp nelawoo yéendaloo fanaandaloo amoo mbokk amoo xarit amoo rak bu dul dara lépp lu ci waay di wax it xol la koy waxee kon di ko gërëm di ko sant au nom de tous les invités et tout wasalaam ca kalas ba na nga war man jàngalekat ya وسلم اقرأ لك واتسم

جودك أبنى غلواي بلتس يا 高いジャングそこでフェルの達やか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 فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع صدق الله العظيم ci moom ñu fekkee dara loo xam ne ñu naan jàng sa doom jàng ba pare di def cérémonie bu toll nii jàll ba fekke wu moom dara it jaadu na nga am loo ci fekk moo taxoon ñu woowaat ko mu doon barkeelu ginnaaw bi dañuy woo soxna Loota mooy candidat bi nga xam ne moo ñu mujj soxna Loota Ndiaye moom mi ngi juddu atum 2002 Euh, le 15 11e mois 2002 le 14 boobu 15e mois 2004 euh, fii ci Dakar waajuram bi sëñ Xaali Ndiaye mi toog ak euh, Soxna Daba Ndiaye. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي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 إنا أعطدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا نكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراد منهما منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير تكبير تكبير ما شاء الله يا صوم لو تنجاي wax dëgg yàlla njàng mi am na solo neex na loo teg la ci yoon mel na ne de ñii fi ñëw di si bàyyi woo koog ñoom wax yàlla ne la wan ne fii yëpp yi ñore daal mel na nag moom balaa kenn jariñ naa naa jël sama wàll bu baax a baax kon nag ñu ne tatagal di la ñaan yàlla sàmm la te barkeel sa alxuraan di def la ngay makkee ba bu islam te jënd umma islamique bi yëpp kon mel na ne lii mujj ci jotaay bi moo ñu bëgg a dese di xale bi nga xam ne moo ñu war a jàngal xatma bi sëñ Xaadim Njaay kon mu jege si bismillahi rahmani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم بلطف سمعك في التصوير وخف لطفك في التيسير والتف بنا فيما جرت به المقادير واصرف عنا السوء إنك على كل شيء قدير اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا فنعجز عن التدبير ولا إلى أحد من خلقك فنجزع من التقصير وتداركنا بتلفك يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعظيمة على الرشد اللهم لك الحمد حمدا لا متى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائلها إلا رداك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا